juróom minutes yoo xam ne fii taxaw di jàngat li ngay waxi téléphone benn. ah ala <laughs> moom benn ah. sama sa sama sourire sax waaye man ni ngay waxee téléphone sax dafa am sama amoon musa am di ngeen a xaw a sax. maa nga la koy wax waaye am nga jëru sax sama benn excès la yàgg na dafa demoon si micro bi. miroir bi lay jaari daal di yàlla def mu teew quoi. man nokkal la yow ba nga duul yow yow ñoo ah? ko bàyyi da lay li yow problème nga bëgg. waaw du problème nga bëgg may ma ma ñëw nañ ci dem. may ma ma ñëw indi problème mu ñëw. fakkine yoo fakkine go whatsapp même fa fakkine fakkine fokk yu fakkine gay sonal nga ma yas jëkkër waaye fakkine xam ma ñu réussir sama bañ yi ah fakkine fii kaw fii kaw fii pour lan. ñàkk xool ñu naan la jeeg man loolu gën a métti mu xaw ma naa ma jeeg moo la gën a métti te fajoo ko nag c'est trop tard nag waaye man baaxuma dama dee dangaa baax nag bilaax baax yow sama góor bu baax nga ca toqaani góor bu baax dangaa baax nag sonn ñu lay bëgg a boo yoree dix mille doo ma jàppale ma dem yóbbu ko hôpital léegi bi sonn na de ah, man kay dama sonn maa ko gën a sonn fukki junni dañ si jàppale yow tamit ay wax ay juma daa feebar yaayam papaam gaañu. te yow ne yàlla àdduna neex ba nga dem see kooku xam naa kan mooy kaw. bu soyoon doo am dara kaw bugguma buggatu takk si man moog jabaree yam fakki nag amoo jom su ma waxee nga papa Zeke mu xasir taxaw si mbedd yeeg si taatu mango yi foo nga taxaw fa xale yëpp màgg nañ ndeysaan. waaw suñu màggul nan la ñuy def. Eh, man de ku ma waxoon ne mbënd te mbënd ñi nga mel nii léegi man dama dama dama jaaxal. nan laa mel. mu ne la jooy baqatay aw nii yuudi mu <laughs> eh, xale yi. dina ko bàyyi génnal ci li nga nekk. ah seen kër nag man seen kër man seen moom daaw fa gëj. ba ñu tax sama in ko si kër gi. léegi de gëj nga fa. ah gëj naa fa moom. gëj léegi nag yitte yi ak jamono yi ñoo ma téye. te eh, man moolu ma ko dara andi vingt mille. waaw tey dix lii du ma ko laal. ah lii du ma ko laal. waaw bii daal ma ko jox déedéet andi vingt mille yi rek yow tamit nag yow góor bu baax nga. mais man ko du ma góor bu baax. déedéet yow góor bu baax. waaw dama jàngoo kontaan naa dégg nga. ok merci man de man kontaan naa kontaan naa ko merci. sax man trop te bëgg ay feebar. waaye man damaa bëgg a jaaxle booy bi suñu waxee tàq rek mu ne ma mu ne ma ay malade ah dafa yaakaar xaw ma malade mooy yi ñuy jàpp nii policier yi ñuy jàpp beneen bis topp mooy ay ay lem lem pour la. taj na taj ma aha na ma taji fàtte woo ko ba pare di xool fee di ma aveugle yaakaar ni du ma comprendre kii wallaahi loo teg naa ko teg yoon boo laal ma laal ko kii dina sonn terap pour ñu daje maanaam pour pour nga gis ma di nga sonn terap